yàlla dafa def tey ñu invité ma fii ma bëgg si kontaan si parce que lii dama ko yàkkamti woon pour wax ko parce que bët Sénégal ku nekk xam na ne suñu waajur fii lañ daan liggéeyee di dundal seen njaboot man liggéey naa fii sama génération sama mag yëpp liggéey nañ fii képp ka nga xamee ne yaa ngi doon liggéey bët Sénégal rek yaa ngi toog torox nga parce que injustice moo fi am injustice boo xam ne fu nekk yuuxoo nan ko fa parce tool bu mel nii xam ne loo fi def mu nangu amul lu mu nanguwul chou karoot lu nekk lañ fi daan def sople melon euh, pastèque amul lu manqué fii luñ fi daa laawul bay te léegi xoolal sunu jaaykat yi nekk jam ñaajo par exemple tey euh, produit Maroc la ñuy jënd mm. et que pourtant produit boobu war naa mën a joge fii mm-hmm. war naa mën a joge fii ñu dem di a jaay sunuy sunuy njaboot di si dund sunu mag yi ñëw fii di liggéey parce que mag yi mag yi màgget nii dañ daan ñëw ak seen yet sax ñëw di liggéey fii seeni i njaboot a ngi fi mën na leen na remplacer jël li ñu moomoon ñëw taxaw mais loolu amul xoola deeni maa liggéey pôle urbain bi pôle urbain bi jël na lépp ñëw na ba su sunu palanteer yi léegi nag en revanche dañoo bëgg bët Sénégal gii ñu jox ko ñi ko yellool ñi ko yellool mooy baadoole yi daan bay fii amuñu fenn fu ñu aw ñoo ko yellool mais borom barke yi ñuy jox suuf si ñu jël seeni milliards di ko lii loolu mënatuñu kaa seetaan moo tax ñu jox en tant que jigéen ñëw si njotaay bi pour wax parce que lii neexunu tey neexunu ëllëg ku daan taxaw bët Sénégal rek boo fi taxawee tey sa xol bi jeex na loolu mënatuñu ko si wax tey léegi nag ñoo ngi interpellé le président de la république président Macky Sall moom la ñuy liggéeyal de man mii di taxaw moom laay liggéeyal dama bëggoon nag mu gestu paysan yi nekk jam ñaajo xam ne fii lañ daan fori seen wër seen wërsëg mu jàppale ñu jàppale jigéen ñi déedéet maa liggéey gi nga gis ni jigéen ju fa taxaw daan nga bay hectare kànja ñu yóbbu ko jaay ko dundal seen njaboot fi mu nekk kenn amatul loo def ku xëy yaa ngi toog loolu nag doon na lu metti tey nu ñëw taxaw pour wax ko Sénégal gépp dégg ko monde bi yëpp dégg parce que lii ku nekk xam na ni américains yi fii lañ daan ñëw bay fi lu ne ñëpp di fi liggéey am sunu teraanga mais léegi loolu amatul mais nañ ko jox ñi ko yellool ñu bay ko. Euh, te ñoo nekk ci période boo xam ne yëngu-yëngu yi dañoo bëri te ñu am loo xam ne dañ koy war a jottali suñuy kilifa euh, wax nañ ko léegi liñ bëgg mooy lii nga gis fii di muy sphère sphère ministériel bi ministre agriculture moo fi nekk dañu bëgg président mu jël tool bi ak li wër tool bi ci ñaari pole yi mu def ko pole agricole te mu loger ko mu def ko ci biir ministère agriculture parce que mbéykat dañ koy dénk ka yore mbéy mi que ñu mun a continuer di béy lu ñuy dundee di dundee lu ñuy béy jigéen ñi wax nañ ko léegi fii boo demee jam ñaajo bu njëkk ba bët Sénégal moo doon béy lépp lu doon jaay comme fruit ci biir jam ñaajo waaye léegi yeneen bitim réew yeneen fruit la ñuy jëlee bitim réew mu remplacer ñun la doon war a te Sénégal am na lépp bu nee banaana demal Tamba fédération des maraîchers euh, producteurs de bananes mun nañu bay lu lu kii léegi ñu ngi bay sax bay béy banane bio ah ci direction euh, Mamadou Omar euh, Sall donc Sénégal mun na vraiment góorgóorlu fexe ba ñu bay lu ñuy dundee di dundee lu ñuy bay ba suñu xale yi nekk fii tey périmètre bër Sénégal am na investissement 1 milliard foo dem tiwo mu nga fa boo ubbee ndox ñëw am nañu <clears throat> forage mhm. ay forage yoo xam ne ñun ñoo ko moomoon mhm. fan yi mhm. ñu indi ndox mi ak li nga xam ne gouvernement bi def na ko yëpp ci investissement pour ndoxi Caaroy bi ak ndoxi Bertilaan bi ñu indi ndox bi mu romb tool bi dem euh, euh, euh, Pout di ko jox yeneen béykat pour que fii ñu continuer di ko def ciment ciment bi daal lañu bëgg ñu arrêté te suñu tool ñu delloo ñu ko te ñu ñu delloo ko ci kilifteef ministre agriculture comme yàlla indi na ko ba mu nekk ni ñu ngi taxaw nii ci biir tool bi di di gis euh, euh, bureau ministre